عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة na la it ci jëmmam. kenn la ci ay turam ak ay meloom yëpp. ci ay turam ak ay meloom yëpp. te moom rek moo fiy sax ba faw. te moom yàlla moomu moom rek moo fiy sax ba faw. su taxutoon ak loolu. su taxutoon ak loolu. dana am ñoo xam ne duñ mën a tàggoog ñoom mukk. dana am ñoo xam ne duñ mën a tàggoog ñoom mukk. ndax seen njëriñ ci mbindeef yi. ndax seen i njëriñ ci mbindeef yi. ci zaahir ak ci baatin. ci zaahir ak ci baatin te yàlla mbindeefam yi rek ñoo ko itteel te yàlla rek ñoo ko itteel yonent bi ne ki gënal yàlla ci ñoom yonent bi sallallahu ki gënal yàlla ci ñoom mooy ki ëpp njëriñ ci ñoom mooy ki ëpp njariñ ci nit ñi suñu yaay ji ñuy tàggoo tey suñu yaay ji ñuy tàggoo tey dundam lépp dundam lépp ci mbaax la ko def ci mbaax la ko def ndax alquran mooy téere yàlla bi. alquran mooy téere bi yàlla bi. di wax yàlla di wax yàlla. di wax yàlla. te dundam lépp ci téere bii la ko def. dundam lépp ci téere bii la ko def. ba mu ko xamee ba xam lu ba mu ko xamloo ba xam ko. ba mu ko xamloo ba xam ko. dafa des di ko xamle guddeem ak ay bëccëgam tukkeem ak teewam yëpp. dafa des di ko xamle guddeem ak ay bëccëgam teewaayam ak ay tukkeem yëpp. ci lu ko jege ak lu ko sori ci mbokk ci lu nekk def na ko ci téere yàlla bi ci lu baax lu nekk def na ko ci téere yàlla bi yàlla nag ñi ko gënal ci nit ñi ba tey yàlla nag ñi ko gënal ci nit ñi ba tey wala ñi gën ci mbindeefam yi wala ñi gën ci mbindeefam yi mooy ñi xam lu alquran ba pare wëlbatiku di ko xamle mooy ñi xam alquran ba pare wëlbatiku di ko xamle kii dundam lépp ci xamle alquran la ko def. ci dundam lépp ci xamle alquran la ko def. te ay seede yoo xam ne. te ay seede yoo xam ne. bisam bii mayut ko ko. bésam bii mayut ko ko. waaye bis bu nekk rek ci dundam mënoon nañ ko seedeel loolu. bés bu nekk rek ci dundam mënoon nañ koo seedeel mbaax gii. ñu ngi tàggook ku baax. ñu ngi tàggoo ku baax. waaye mu ngi jëm ci ku baax itam. waaye mu ngi jëm itam ci ku baax. lépp lu mu doon def ci lu baax. lépp lu mu doon def ci lu baax. fu mu jëm nale la amee njariñ dëgg dëgg. fu mu jëm nale la amee njëriñ dëgg dëgg. dana ko fa fekk. dana ko fa fekk. te dana bàyyi fii ci àddina itam baax baax yi nga xam ne jëf na ko ba yàlla nangu ko ba pare. te nga ko ba nangu ko ba pare. lépp yàlla nangu na ko. te lépp yàlla nangu na ko. mu koy jaale mbooleem doppam bàyyi lépp. imam na ñu ngi koy jaale mboolem toppam baay mi lépp. fii ci Medina. fii ci Medina. ak li des ci Sénégal yëpp. ak li des ci Sénégal lépp. di jaale mboolem alamul islam di ko jaale mboolem alamul islam ndax lu nekk war nañ cee mën a utale ba mu des téere yàlla bii. ndax lu nekk mën nañ ci utale. ba mu des téere yàlla bi liggéeyal na ko. liggéeyal na ko. ku sori ak ku jege. ku sori ak ku jege. am na lu leer ci loolu. am na lu leer. ci liggéey boobu. kon ñu ngi koy jaale mbooleem alamul islam yi. kon ila imam ne ñu ngi koy jaale mbooleem alamul islam yi. ci penku ba ci xarfu. ci penku ba ci xarfu. nit la koo xam ne ku nekk rek mën nga koo jaale sa bopp. nit la ko xam ne ku nekk rek yow mën nga koo jaale sa bopp. bokk rek. bokk rek. ci bisam bi ci bisam bi nit mën na cee jëlee lu bëree bëri. nit mën na cee jëlee lu bëree bëree bëri ci yiw. ndax kenn doxiwut la ëpp mbaam yàlla. ndax kenn doxewut lu ëpp mbaxam yàlla te ku teewe bisam bii rek wér na ne yàlla baal na la sa te ku teewe bii rek wér na la ne yàlla baal na la sa lépp alhamdulilah damm damm la nag bu rëy damm damm la ji ci diina ji ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu uutu fa moom ci boppam mu uutu fa moom ci boppam ndax loolu rek moo ko mën a jàng ndax loolu rek moo ko mën a jàng damm damm la ci tariqa bi damm damm la ci tariqa bi ba tey ñu ngi ñaan yàlla mu uutu foofu moom rek moo ko mën a jàng ba tey ñu ngi ñaan yàlla mu uutu foofu ndax moom rek ko mën a jàng damm la ci fayda bi damm ñu ngi ñaan yàlla mu uutu fa ba tey ñu ngi ñaan yàlla mu uutu moom rek moo ko mën a jàng moom rek moo fa mën a uutu moom rek it moo fa mën a uutu jàngal ñu damm yàlla na fa uutu yàlla na yàlla bu mu fekk benn fitna ci kanamam yàlla bu mu fekk benn fitna ci kanamam yaa rabi yàlla bu mu ko bàyyi ci gannaawam yàlla bu mu bàyyi it benn fitna ci gannaawam barkeem yàlla na des njaboot gi yëpp des ak ñun ñëpp barkeem yàlla na des ak njabootam gi yëpp des ak ñun ñi ñëpp lépp lu mu def ci alquran lépp lu mu def ci alquran yàlla na nekk leer yàlla leer ànd njaboot gi goog ñoom mukk yal na kanamam leer bu baax a baax yal na kanam gannaawam itam yal na barke bu baax a baax ñu koy jaale waa kër baay yëpp na ñu ngi koy jaale waa kër baay yëpp di ko jaale xalifa bi Cheikh Mouhamad El Mahi di ko Mahi di ko jaale itam Mouhamad Lamine Baba Lamine di ko jaale itam Cheikh jaale itam waa di ko jaalee waa këram yépp Seydina Bun Omar mu ngi nii sama wet Seydina Bun Omar mu ngi nii toog ci weti imam nekk seen mag ñoom ñëpp nekk di seen mag ñoom ñëpp mu ngi dend ak Muhammad rakkam mu ngi dend ak Muhammad rakkam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom ñëpp ñu leen koy jaale di leen ñaanal yàlla ñëpp imam na ñu ngi leen koy jaale te di leen ñaanal yàlla am na koo xam ne boo ko ñàkkee am na jëmm joo xam ne boo ko ñàkkee. ñàkkuloo. ñàkkuloo. day soppeeku ay jëmm yu bari. ndax dafay soppeeku ay jëmm yu bari. kii loolu lañ xam ci moom. te kii loolu ci moom. ay jëmm yu bari lay nekk tey. ay jëmm yu bari lay nekk tey. ci njabootam. ci njabootam. njaboot ak deret ak njaboot roxo. ci njaboot ak deret ak njaboot ak roxo. ñu ngi sant yàlla daal. imam nañu ngi sant yàlla daal alhamdulilah. ci njëlbeen ak ci mujj yëpp. ci njëlbeen ak ci mujj yëpp. ba nga xamee ne. ba nga xamee ne. bokk nañ ci ñi nga xam ne. bokk nañ ci kuréel gi nga xam ne. danañ jëriñoo bisam bi tey. danañ jëriñoo bisam tey. ndax bis la boo xam ne du ku nekk la ko yàlla di may. ndax bés la boo xam ne. du ku nekk la ko yàlla di may de. du ku nekk itam moo ko mën a fekkee. du ku nekk itam. moo ko mën a fekkee. ñi yàlla bindoon ci azal na ñoo koy fekkee rek ñoo koy fekkee. ñi yàlla bindoon ci azal na ñoo koy fekkee ñooñu rek ñoo koy fekkee. ñi ko fekkee ñëpp yeboo ñu kon ñi ko fekkee ñëpp bu ñu yeboo ñu sant yàlla alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla bu baax allahumma salli ala xalifa bi ne bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullah. ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla yàlla nag ñu yool ci suñu musiba di ñaan yow yàlla nga ñu yool suñu musiba mii yàlla lu na nga ñu wattal lu gën li ñu ñàkk ñu ngi gërëm ay ay ay nit yoo xam ne dinañ tudd seen tur sëriñ seeni tur ndax lañ jëmmal moo tax ndax lañu jëmmal moo tax dinañ gërëm ku ñuy wax Guy Marius saaña dinañ gërëm ku ñuy wax Guy Marius Sagna. ndax li mu wax ci soxna si. ndax li mu wax ci soxna si. ku teew rek yaa ko mën a xam pour ko ci nit. ku mën a xam pour wax ko ci nit. waaye itam ku doon góor. waaye itam ku doon góor. waaye itam ku dëggu itam. waaye itam ku dëggu itam. ñu ngi wax ci lu mel noonu ci Ali Nguy Njaay ñu ngi wax ci lu mel noonu ci Ali Nguy Njaay ndax moom tamit ndax moom tamit seede na seede yoo xam ne seede na seede yoo xam ne dëgg-dëgg xolu jullit bu mat sëkk dëgg-dëgg xolu jullit bu mat sëkk ak góor gu mat sëkk ak góor gu mat mën a taxaw taxawee yooyu moo mën a taxawee taxawaay boobu danañ tudd ku ñuy wax Idrissa Seck danañ tudd ku ñuy wax Idrissa Seck. dëgg-dëgg moom tamit taxawaayam. dëgg-dëgg moom tamit taxawaayam. ak seedeem ci soxna si. ak seedeem ci soxna si. kenn mënut ko na table. kenn mënut koo na table. ñu leen di gërëm. sëriñ bi ne mu ngi leen di gërëm. ñu leen di wax ne li ngeen def gis nañ ko. mu leen di wax ne li ngeen def gis nañu ko. defaleel ñu defal defaleel defaleel ñun ngeen ko defal. ne defalu ko kenn ñoom ñii ngeen ko defal. déedéet waxuma loolu de dama ne. defalu ñoom ko. ne defalu leen ko ko. humanité yëpp ngeen koy defal. humanité yëpp ngeen ko defal. ndax ku jar a ci àddinaam. ndax ku jar ci àddinaam. nga xam ko. nga xam ko. jéebaane ko. jéebaane ko. ñëpp ngay liggéeyal. ñëpp ngay liggéeyal. kon seen taxawaay rafet na. sëriñ bi ne seen taxawaay rafet na. kii ñuy tàggoo tey nag. ne jëmm ji ñuy tàggoot tey nag kenn mënta wax ne kenn mënta wax ne vingtième siècle bii ñu génn vingtième siècle bii ñu génn ak vingt et unième bii ñu génn ak vingt et unième bii ñu génn budul baayam bi ko yar budul baayam bi ko yar kenn doxut ci ko suuf ko yem ni moom kenn doxut ci kaw suuf ku yem ni moom ci lu nekk nag ci lu nekk nag ci ci gëm ci gëm gëm yàlla gëm yàlla ci nangu ci nangu ci xam lu baax ci xam lu baax xam noo koy utee xamit noo koy utee xam foo koy utee xam foo koy utee bu nit di kër yi di uti àddina bu nit di kër di uti àddina. di uti lum teddee ci àddina. di uti ci àddina. moom dafa xam. am bunt yi ñu amee. xale yu ndaw yu tuuti xale ñoom la dajale. boo ko fekkee xale yi. boo ko fekkee xale yi. kenn rek ngay fekk kenn rek la ci ñoom. kenn rek ci waaye am na lu mu bëgg a def ci ñoom. waaye am na lu mu bëgg a def ci ñoom. àddina bi mën naa soppeeku. addina bi mën naa soppeeku nag. te ci yéen ñi jaaree. te ci yéen ñii lay jaaree. kon bala ngeen cee àgg war ngeen koo mat. kon bala ngeen cee àgg war ngeen koo mat. war ngeen koo mat ci seen gëm yàlla. war ngeen koo mat ci seen gëm yàlla. ngeen koo mat ci ut ci am ci alxuraan. war ngeen koo mat ci ci am ci te emalewu ko kum jur ak kum jurut. te emalewu ko kumu jurut. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñoo em ci moom. ñoo em am na lu muy war a def ci doomu aadama. am na lu mu war a def ci doomu aadama. am na lu mu war a te def na ko te dara manqué wu ci. te def na ko te dara manqué wu su fekkee yaa ngi wax nit ku baax. su fekkee ne yaa wax nit ku baax. su fekkee yaa ngi wax nit ku am ittee. su fekkee yaa ngi wax nit ku nit ku kawe. su fekkee yaa ngi wax nit ku kawe. su fekkee yaa ngi ànd ak yaa ngi wax koo xam ne yàllaa ngi ànd ak moom ci làmmiñam ak jëfam. su fekkee yaa ngi wax koo xam ne yàllaa ngi ànd ak moom ci làmmiñam ak jëfam. RFI dafa mos a ñëw ci daaraam. RFI dafa mos a ñëw ci daaraam. journaliste bi di ko laaj. journaliste bi di ko laaj. ah sa daara ji dafa nga ne jar na ciy def yëpp. ak ñu ngi koy géntal yëpp. ak ñu ngi koy géntal mu ne ko defe naa RFI daal lu ko dérangé rek jar na ko. mu ne ko defe naa ne RFI daal. lu ko lu ko tax a ñëw. lu ko tax te yéen a kenn xamatul looy teg ci. kenn xamatul liggéey na liggéey boo xam ne. liggéey na liggéey boo xam ne. France ci boppam yëg na ko. France ci boppam yëg na liggéey bi. nangu na ko. nangu na ko. yónni na rajoom. yónni na rajoom. na dem seetal ko ndaw si kan ak lu muy def. ne na dem seetal ko ndaw si kan la ak lu muy def. journaliste bi nekko ko xale bii nga tiim nii di ko yar. journaliste bi ne ko ndax xale bii nga tiim nii di ko yar. bu màggee. su màggee. danañu bëgg ñun France. ñu bëgg ñun France. mu ne ñun jàngale jàngale bañeel. mu ne ko ñun jàngale bañeel. bëgg doomu aadama rek la ñuy jàngale. bëgg doomu aadama rek lañuy ñuy jàngale. bon liggéeyu pour luy yàqal doomu adama wala lu koy baare. kon liggéeyut pour luy doomu aadama wala lu koy baare. ñu ngi xam ci moom. sëriñ bi mi ngi xam ci moom. juróom benn at la ko magee. xale. bokk ñu ko nekkee. xarit man ak moom. mu di ma bëgg. mu di ko bëgg. boobu di jàng. xam-xam ba mu ñib si kër ci kaw na ñib si kër ci kaw am na yu bëri moom mu ñu ko doon jàngal. bëri moom moo ko ko doon jàngal. boo xam ne te bu neex boo xam ne dafa neex ci moom muy jigéen joo xam ne du tontu lu dul ci alquran jigéen bi ak waxtaan woowu daf koo mokkal jigéen jooju ak waxtaan ak woowu yëpp daf koo mokkal te booba xale la ma ngi ca kër ga booba tuut tànk la mu nga ca kër ga booba la tànn alquran muy wéttalam booba la tànn alquran muy wéttalam ba bi muy tàggoog àddina bi ba bi muy tàggoog àddina bi sama doom xamit bi ne doomam xamit bi moo ko mujj a déggal alquran moo ko mujj a déggal alquran mu ngi xool xaamit ay ay bët mu ngi xool xaamit ay bët ak uh, màkki mi toogoon ak màkki mi toogoon ak ah ak ak setam Cheikh Tidiane Kane ak setam Cheikh Tidiane Kane yëguñ dara ci nit bi daanaka xeeti aljanna leen di xeeñ. yu dul daanaka xeeti aljanna leen di xeeñ. ndax kii ndax kii ñu toogat di ko jàngal alxuraan. ndax kii ñu toogat di ko jàngal alxuraan. boo gisee bët yim leen di séddale. boo gisee bët yim leen di séddale. di leen ubbi bëtam xaw naa jafe ci moom. ndi leen ubbi bëtam xaw naa jafe ci moom. waaye mu ngi leen di xool ñoom ñëpp. waaye mu ngi leen di xool ñoom ñëpp. di gërëm yàlla. di gërëm yàlla. mi ko may. mi ko may. bi muy génn àddina. bi muy génn àddina ñum préparé ci alxuraan ñum préparé ci alxuraan ñooy toog di ko wan bi mokk na ñooy toog di dars bi mokk na kon yàlla teral na ko ci àddina nangu liggéeyam kon yàlla teral na ko ci àddina nangu liggéeyam bala moo dem bala moo dem yal na yàlla nangu yëppam yal na yàlla nangu yëppam yaa rabbi yal na yàlla yëkkati yëppam yal yàlla yëkkati yëppam mu dem nii mu ngi dem yaayi jullit bu nekk la. yaayi jullit bu nekk la. umul muminina jabaru yonent bi dañ koo xas jël. umul muminina jabaru yonent bi daf koo xas jël. waaye moom mii. waaye moom mii. mën nañoo wax ne yaayi jullit ñi la. mën nañoo wax ne yaayi la. Afrique gii mu dëkk. Afrique gii mu dëkk. amut foo fay teg sa tànk. amut foo teg sa tànk. lu dul da nga gis ngëneel goo xam ne moo ko fa samp. lu dul da gis. ngëneel goo xam ne moom mii moo ko fa samp ci commencé ko ci Sénégal gi ñu commencé ko ci Sénégal gi Gambie Gambie mboolem Afrique de l'Ouest mboolem Afrique de l'Ouest da fa dégg toujours da nga fa dégg toujours man diw man diw génne ci daaru alquran génne ci daaru alquran bu Seyda Mariam ba mu nekkee ndaw la mébét alquran di wéttalam ba mu nekkee ndaw la mébét alquran di ndax ndaw soosu mu gisoon ci ci ci baay wala ci téere yi ndax ndaw soosu mu gisoon ci baay wala ci téere yi jàngal na ko jàngal na ko sopp na ko sopp na ko ba def koo mokkala mokkala mokkal ba nga xam ne ba def koo mokkala mokkala mokkal ba nga xam ne li mu doon doon fàttewu ko li muy doon doon mag fàttewu ko ndax alquran muy wéttalam ndax alquran mooy wétalam alxuraan mooy bëgg-bëggam. alxuraan mooy bëgg-bëggam. am na lu bari. am na lu bëri moom moo ko jàngal. sëriñ bi ne moom moo ko ko jàngal. ci ndaw yu ma daan mokkal ci moom laa doon déggee di ko mokkal. ci ndaw lu mu daan mokkal ci la ko daan liggéey di ko mokkal. ci gannaaw gi. ci gannaaw gi. yàlla dafa def mu óolu ma. dafa def mu óolu sëriñ bi. lépp lu am lu muy bind lu maa koy bindal. ba lépp lu mu am. lu muy bindulu sëriñ bee ko koy bindal. correspondance am ci arab yëpp maa ko ko ameeloon. correspondance am ci arab yëpp moo ko ko ameeloon. benn bés lu ma def. ne benn bés lu mu def. mu ne ma maaxi. mu ne ko sëñ maaxi. dégg arab. dégg arab. taxul nga xam ni ngay waxee ak nit ñi. taxut nga xam ni ngay waxee ak nit ñi. nit ñi beneen wax beneen façon la. waxee nit ñi beneen façon la. boo xam ne dañ koy jàng. boo xam ne dañ koy jàng. dinaa la ko jàngal. dinaa la ko jàngal. ba mu benn lettre. mu bind ko benn lettre. mu jëm ci benn kilifa. mu jëm ci benn kilifa. maa ngi ci bind benn bayit. mu ci bind benn bayit. ne ko yow mi may oo eh yow mi may oo. ne ko eh yow mii may oo. lu tax déggoo ma. lu tax déggoo ma. ndax damay oo koo xam ne dundut. ndax damay oo koo xam ne dundut. bi ma ko jàngalee. bi ko ko jàngalee. mu ne ma lii kenn dina ko wax. mu ne ko lii ndax kenn dina ko wax. ku jëm ci kilifa. ku jëm ci kilifa. ngay wax ak moom nii. ngay wax ak moom nii. defe nga ne sa soxla dina sotti. defe nga ne sa soxla dina sotti. demal dindi ko. demal dindi ko. ma mu dem dindi ko. ci suba sama ñëw. ci suba sama ñëw. mu ne ana bayt ba nga bindoon. mu ne ko ana béyti bi nga bindoon. ma ko mu ngi nii. mu ne ko mu ngi nii. mu delloo ko ci. mu ne ko delloo ko ci. ma ne ko lu tax. mu ne ko tax. mu li nga ci wax mooy dégg mu ne ko li nga ci wax mooy am na ñoo xam ne foog nga toj seen bopp yu ndax ñu dégg la. am na ñoo xam ne foog nga toj seen bopp yu ndax ñu dégg la. ba mu demee ba lettre ba àggee fa mu jëm. ba mu demee ba lettre bi àggee fa mu jëm. Seyda Mariam mu ne lim doon xaar. Seyda Mariam mu ne lim doon xaar. ku ko tontu ci xuloo. du ko tontu mukk ci xuloo. ku ko tontu. ku ko tontu ku ko tontu ci xuloo la doon xaar la doon xaar waaye dafa fekk ne waaye dafa fekk ne la yàlla bind du loola la yàlla bind du loola ñi doon waxat dégg nañ ko ñi ñu doon waxat dégg nañ ko ñu laaj ko loo soxla ñu laaj ko loo soxla mu ne liggéeyal alxuraan rek mu ne liggéeyal alxuraan rek ñu def liñ mën a def ak moom ñu def liñ warloog moom kon kon du alxuraan rek la doon jàngale du alxuraan rek la doon jàngale muy jàngale alxuraan mu ngi jàngale alquran. mu ngi jàngale jikko. mu ngi jàngale it jikko. mu ngi jàngale nag ngay jëflantee ak nit ñi ak nooy waxee ñoom. mu ngi jàngale it nooy jëflantee ak nit ñi ak nooy waxee ak ñi. te xam-xam boobu muy jàngale. te xam-xam boobu muy jàngale. tëju ko ci benn langue. tegu ko ci benn tëju te tëju ko. tëju ci benn langue. langue bu nekk rek dana àggale ci xam-xam. langue bu nekk rek dana àggale ci xam-xam. doomu maa ngi nii benn Omar Kane. doomam a ngi nii Boun Omar Kane euh, expert d'agricole la di expert d'agricole doomam a ngi nii Ousmane kan doomam a ngi nii Ousmane Kane professeur université di professeur université doomam a nii Assietou Kane di kilifa ci banque banque bu mag ci Sénégal wala ci Afrique di kilifa ci banque bu mag ci Sénégal ci àddina bi bon nag kon nag. ñaari côté yëpp la doon liggéeyal. ñaari côté yëpp la doon liggéeyal. te loolu mooy jullit. te loolu mooy jullit. yu yonent mun a jullit ñaari mbagg la. yonent mun a jullit ñaari mbagg la. sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbagg yëpp. ne mën nga naawee ñaari mbagg. moom. kon moom mu doon naawee ñaari mbagg yëpp. mu ngi doon naawee ñaari mbagg yëpp. alquran a ngi nii dund na. alquran a ngi nii dund na. école français ngi nii joxe na ci preuve. école français ngi nii. joxe na ci preuve. bon jigéen bii ma doon wax ne. bon jigéen bi mu ñu doon wax ne. vingtième siècle ak vingt et unième bii ñu génn. vingtième siècle ak vingt et bii ñu génn. ñu dugg. ñu dugg. ku dox ci kaw suuf. kuy dox ci kaw suuf. lu dul ñu ko yar. lu dul ñu ko yar. amut ku mel ni moom. amut ku mel ni moom. ndax lu nekk joxe na ci misaal. ndax lu nekk joxe na ci misaal. ñoom yeneen intellectuels yi ci façon beneen façon bi. yeneen intellectuels yi ci beneen façon bi. dañuy wax ne dañuy xeexal jigéen. dañuy wax ne dañuy xeexal jigéen. pour nangam ak nangam ak nangam. pour nangam ak nangam ak nangam. waaye moom daf doon xeexal góor. waaye moom daf doon xeexal góor. pour góor itam xam ne dafa war a yëkkati mu jëm kaw. pour góor itam xam ne dafa war a yëkkati mu jëm kaw. ndax defal na Sénégal loo xam ne. ndax defal na Sénégal loo xam ne. waxuma Sénégal rek mais Afrique bii ñu dëkk. sëriñ bi ne waxul Sénégal rek mais Afrique bii ñu dëkk. jigéen bu mën a jógee ci école bu mënte jogee rek defalu ko senegal jigéen bu mën a jógee ak école bu mu mënti jógee rek defalu ko Sénégal. ndax xamul num koy defee. ndax xamul nu defee. kii dafa xam nu koy defee. kii nag dafa xam nu koy defee. ndax lan. ndax lan. wattaqullaha wa yuallimukumullah nekkalal yàlla yàlla jàngal la. nekkalal yàlla yow jaam bi yàlla jàngal la. ku yàlla jàngal nag sa xam-xam tëjootut. ku yàlla jàngal nag sa xam-xam tëjootut. xam-xam du pour fo. xam-xam du pour fo. du pour caaxaan. du pour caaxaan du pour discours. du pour discours. xam-xam pour liggéey la. xam pour liggéey la. loolu la xam moom. loolu xam xam-xam liggéey la. xam-xam pour liggéey la. liggéey na di liggéey na. liggéey na liggéey na. boo xam ne adduna bi yëpp nangul nañ ko loo xam ne adduna bi yëpp nangul nañ ko booba liggéey. lu tax ma njëkk wax Guy Marius Sagna. sëriñ bi ne lu tax mu njëkk a wax Guy Marius jëmmal religion boo xam ne du suñu bos. ndax Guy Marius Sagna dafay jëmbal religion boo xam ne du suñu bos. bon donc waa religion am nangul nañ ma si. bon li muy firi mooy waa religion am nangul nañ soxna si. lu tax ma wax Aliou Nguy Ndiaye. li tax muy wax. Aly Ngouille Ndiaye. dafa nekk nit boo xam ne. dafa nekk di nit koo xam ne. yëngatu na ci àddina lool ba xam àddina. yëngatu na ci àddina lool ba xam àddina. bon bu nangulee nit ci biir bu nangulee nit ba tagg ko. bon bu nangulee nit ci ay jëfam ba tagg ko. kon nga xam ne nit kooku itam àgg na fa. kon nga xam ne nit kooku itam àgg na fa. moromi waa àddinaam itam xam ne kii àgg na fa. moromi waa àddinaam itam xam ne. àgg na fa. naka noonu Idrissa Seck. naka noonu Idrissa Seck. bu ñu demee ba nangul nit. bu mu demee ba nangul nit. loolu rek doy na misaal pour adduna bi yëpp. loolu rek doy na misaal pour adduna bi yépp ne kii yàllaa ko nangul ba pare. xam ne kii ko nangul ba pare. bu ko yàlla nangul toon keneen du ko nangul. bu ko yàlla nangul toon keneen du ko nangul. mu ngi nii dem na nag. ne mu ngi nii dem na nag. ay gars yi nañ nit ñëw na ci naka ko suma yaay dee na. ko suma yaay dee na. mu ne ko ki yàlla doon yërëmee dee na. mu ne ko ki yàlla doon yërëmee yaa fi des nag. yaa des nag. yow tamit taxawal taxawaay boo xam ne. yow tamit taxawal taxawaay boo xam ne. yàlla dina la yërëmee ñeneen. yàlla dina la yërëmee ñeneen. te loolu liggéey ak góorgóorlu rek moo koy maye. te loolu liggéey ak góorgóorlu rek moo koy maye. dégg naa ko mu wax mu ne. sëriñ bi dégg na ko mu wax mu ne. bàyyi ma jur doy na teraanga. bàyyi ma jur doy na ma teraanga. waaye loolu du ma ko doyloo man. waaye loolu du ma ko damay liggéey pour wane ne bàyyi ma jur. man damay liggéey pour wone na bàyyi ma jur. te liggéey na lu wone ne bàyyi ko jur. liggéey na pour wane ne bàyyi ko jur. mu ngi nii dem na bàyyi ñu. mu ngi nii dem na bàyyi ñu. suñu yaay yëpp a dem suñu suñu yaay ñun ñëpp a dem. suñu yaay moom la ñu yàlla doon yërëmee. moom la ñu yàlla doon yërëmee. kon nag nañ ko uutu ñun tamit ndax ñu nekk ñu yàlla di yërëmee ñeneen. kon nag nañ ko uutu ñun tamit ndax ñu nekk ñu yàlla di yërëmee ñeneen. yàlla yàlla teral ko. sëriñ bi na yàlla teral ko yaara bi. yàlla na yàlla yëkkati ko. yàlla na yàlla yëkkati ko yaara bi. yàlla na yàlla maqaamaal ko. yàlla na yàlla yaara bi. yàlla na yàlla buural ko. yal na yàlla buural ko yaa foo xamee ne lu dul nguuru yàlla amu fa foo xam ne lu dul nguuru yàlla amu fa ni mu daan defee ci àddina ni mu daan defee ci àddina bii nday joor càmmooy joxe rek nday joor ak càmmooñ di joxe rek booy toog di lekk ak moom booy toog di lekk ak moom salaamaaleykum ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm autorité Sénégal. sëriñ bi ñu ngi gërëm autorité Sénégal. Macky Sall. président Macky Sall. dëgg-dëgg taxawaayam rafet na. dëgg-dëgg taxawaayam rafet na. joxe na ay jàngal joxe na ay jàngale. joxe na ay jàngale. ñëpp ñim leen ko jox def nañ ko. ñim ko jox ñëpp def nañ ko. ñu ngi gërëm Ndiaye Rahma. ñu ngi gërëm Moot Ndiaye Rahma. ñu ngi gërëm gouverneur Kaolack. ñu ngi gërëm gouverneur yi Kaolack. ak commissaire Kaolack. ak commissaire yi Kaolack. ak presse bi yëpp. ñu ngi gërëm. préfet. préfet. ak sous ak sous bi. ak kii. ak seen taxawaay unité yii. ñu ngi leen ciy gërëm di leen ñaanal. ñu ngi leen ci gërëm di leen ñaanal. yal na yàlla yokk seen maqaama. yal na yàlla yokk seen maqaama. yal na yàlla dëgëral leen. yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla may leen seen càkkutéef yal na yàlla may leen seen càkkutéef salli ala sayyidina Muhammad wa sallam يا شمس يا يا مرحبا يا مرحبا أنت الحبيبة لنا أنت التي تساعدنا وأنت قدوة لنا يا مرحبا يا مرحبا حججت بيت ربنا زرت كذا نبينا بشراك ما أسعدنا

allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum sëriñ bi mu ne ku nekk fi nga taxaw nag fi taxaw sëriñ bi mu ne. Aliou yow am nañ discipline. rëj-rëj gi ngeen di. rëj-rëj loo. Cheikh Tidiane. Cheikh Mamadou Amine. Baba. nee na ngeen am nañ discipline. sant yàlla bu baax du julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant yàlla mi ñuy wërsëgalee ñu fekkee bis bu rëy bi sëriñ bi wax na léegi ci biir kàddoom ne al imam al akbar mu ne képp koo xam ne teewee nga julleem man nga xam ne am nga ak mbax ndax ñëpp dañuy wax ne li ñuy ñaan yàlla mooy cat bañ koo jiitu ci bàmmeel liggéeyal na yàlla liggéeyal na yonent bi liggéeyal na Cheikh na Tijani liggéeyal na Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu liggéey na liggéey boo xam ne liggéey bu des la pour toujours muy alquran nga xam ne fi mu ko jëlee du ma wax ne kenn du mun na wax ne moo ko fi njëkk a tas waaye lim tasaare ci alxuraan gisaguma benn jigéen bu ko def ci senegal dëgg-dëgg fépp ci biir àdduna bi samp na fa ay daara fépp ci biir àdduna fi jàngale na fa xale yi dama wax démb ci benn journaliste yi dama doon laaj ci mbiram. ma ne leen yàlla may na ko mbay gu rëy ndax Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom la ñëpp di wooyee baay waaye moom yàlla may na ko ñëpp yaa booy lañ koy wooyee loolu rek day na tettal ci wana lim doonoon. ñu sant bu baax nag sëriñ bi comme ni nga ko waxee léegi sant président Macky Sall loolu danañ ci sawar danañ ci mën a wax ndax yu bari day laaj xam wala fekkee te yu bari ñoo ko xam wala ñoo ko fekkee kon tey. li mu wax ci président de la ak gouvernement am dëgg-dëgg liggéey nañ liggéey yu rëy liggéey nañ liggéey sell te def ko ak xol ak yéene ndax liñ def bu fekkoon na progrès moo tax ñi di ko def kon mën naa am ñëpp dégg nañ ko waaye liggéey nañ liggéeyu rey yoo xam ne ci mbir mi mu ànd ak teggin ànd ak yar ànd ak xam ne kiñ ko defal ak kiñ koy defal ñoom ñëpp mérité nañ ko ñu def ko ci anam boo xam ne lépp a rafet lépp a jaale mboolem région de Kaolack waaye di jaale umma islam bi yëpp ndax Seyda Mariam Niass pour l'islam la woon waaye pour tariqa bi woon waaye pour mbooleem njaboot gi la woon rawatina ndaw yi nga xam ne boo duggee néegam daa nga fekk quarante cinquante ay xale yoo xam ne ci fasantikoo seen baay yi fasantikoo ak nday yi fasantikoo waaye ñëpp ci kawam la ñu curpi pour wane cofeel gi mu amoon ma amuñ benn sikk ne incha allah dana daje ak Mawlana Cheikh Ibrahim dana daje ak Mawlana Cheikh na Tijani dana daje ak yonent bi wax na moom ci boppam ci loo xam ne ñëpp dégg nañ ko mu ne foo xam ne Cheikh Ahmed Tijani ma nga fa Mawlana Cheikh Ibrahima ma nga fa yonent bi ma nga fa moom Seyda Mariama Niass tiitut tiitut pour dem fa kon bisab tey bi xamoon na dina ñëw waaye waxoon na itam na tiitut pour dem fa mi ngi dem di dajeejeeg baayam mi ngi dem di dajeejeeg Cheikh Tidiane ma ngi dem di dajeejeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana dajeeg ñoom ci incha allah yal nañ bokk ci ñuy ramm ëllëg amuñ benn sikki ne ci ne dana ramm yal na yàlla boole ñu ci ñoonu salli ala sayyidina Muhammad wa sallam di nuyu mboolem pays bi ñu di wax di masawu coono ak tiis mi nga xamante dal na ci kaw lislaam jëpp waaye dal na ci Kaolack waaye dal na ci Medina Baye euh, di ànd ñoom tiis bi ci turu Sëriñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha euh, di leen euh, jaale xam naa dinañu war beneen délégation bu ñëw jaal si incha allahu rabbi sama yàlla waaye ñi teew tant que Kaolack tant que doomi bi ñëw ba bokk ak yéen tiis bi nga xamante nii l'islam gépp a ñàkk ndax bu xam soxna Mariama rek li nekkoon liggéey mooy alquran jàngal ay ndaw li mu jàngal ci ay ndaw wax nañ ko fii sànq te yaakaar loolu ku ko xamoon ku ne xamoon nga ko ci loolu kon kaw la gépp a ñàkk ginnaaw ba lislaam ñàkkee euh, mit gi la ñàkk waaye kaw la gépp ñoo ñàkk waaw kon nag ñu ngi euh, xam ne tey bànqaas bu rëy fànq la ci lislaam fàq na ci Sénégal waaye fàq na encore ci Kaolack waaw di bokk ak ñëpp tiisu ak naqar wi rek di ñaan suñu borom gëjële ko fi di ko jaarale suñu sëñ Cheikh Modou Maye ak njabootu Cheikh Islam gi ak Cheikh euh, Babala mi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñaari waajur yëpp di ko jaarale imam Cheikh ak mboolem njaboot gi bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di ànd ñoom tiisu ànd ñoom naqar wi di ñaan yaa suñu borom gëjële ko fi bi jaay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke alquran jërëjëf tabarkal jërëjëf def na fi junney jaloore xam ne jenn ak junne ci jaloore góor gu ko def di jàmbaar kon nag kii junne jàmbaar la man nag ñoo bokki baay suñu baay kenn leen jur bokk ney yaayam daan na boot ak xawaam yi caatam kazalika rakkam bii di xalifa bi jël sama rakkam bokkal ndey baay moo jur taawam bu góor mu dellu moom jox ma doomam Seyda Asmaawu Kan ma yore ko loolu nag boo ko boolee lu bëree bëree bëri la. xam ne rek euh, bés bii tey daf may fàttali bés bi fi bàyyi jóge àddina bi yëpp lëndëm suñ kanam xamuñ fuñ jëm waaye moom mu bokk ci suñu mag yi ñu doon defal di ñu giide tey nag bi mu demee loolu mooy fi mu ne nii. ñun ñoo war a uuf gi mu fi bàyyi def ci liñ mën ba bañ koy fekk Seyda Mariama Seyda Mariama était une battante avant la lettre. Elle s'est toujours battue depuis son jeune âge. Et dans un article à titre d'oraison funèbre, j'ai dit que c'est une femme qui vaut mille hommes. Elle a, réalisé des faits de bravoure que mille hommes n'auraient pas réalisé. Sa vie est, était remplie d'activité, d'efficacité, de grands actes. Aujourd'hui, elle a laissé 400 millions pour édifier la mosquée Mariam Agnès à Dakar. Et aussi, on va édifier l'université Mariam Agnès sur l'autoroute de Dakar. Et c'est ça qu'elle a pour la Faïda Tijaniya. yàlla julli ci yonent bu tedd bi alayhi wasalaam jottaliku ci suñu waajur suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima di nuyu waa addina bi yëpp jullit yëpp ñoo ñàkk tey Seyda Mariam rawatina soppi Cheikh Ibrahim ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sant yàlla yàlla mi nga xam ne moom la ñuy sant ci lu neex ak lu naqadi Seyda Mariam seede ci moom yomb na jigéen ju baax la ju teel a jàng alquran teel koo mokkal jàng ko ba di ko di ko jàngale ndax yonent bi moo wax ne ku gën ci yéen mooy ku jàng alquran ba pare di ko jàngale te moom loolu la def Seyda Mariam jigéen ju baax la jigéen ju tabe la jigéen ju ñeme njaboot la ju mën a joxe ñam ku bëgg Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim itam noonu la ko bëggee woon ànd naa moom ci ay aj yu bari ànd ak moom ci ay tukki yu bari taxawal na ay daara ci dakaar fu nekk taxawal na fa ay daara def na alquran ci dënni ay doomi jullit yu bari yoo xam ne app bi kenn mënu ko wax waaw góorgóorlu na ba gis ngeen lim taxawal yëpp ci dakaar waaw mission nag moo jeex mu dem kom dem mënta ñàkk waaye nag lu rafet rek la def ba jógee fi waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla baayam bu baax bu mu teeru ko teral ko mu nekk gan yonent bi alayhi salaatu wassalaam baayam moo ko muuree woon fii yóbbu ko Dakar mu sëy demb démb biñ koy dugal fii nanaa ko bala sa baay muuree ba léegi yaa ngi soog a ñibbisi biig la soog a ñibbisi tey waaw lu ko neex ak lu ko naqadi kenn musu koo xam ba lim am yëpp fekk ko foofu ci barke baayam dañ koy ñaanal rek yàlla xare ko aljanna di wax la alhamdulilahi rabbil alamin ji waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla bam ñu koy jox mu ñu ko joxe ci mbégte su ko jëlee tamit daf ñuy delloo ci mbégte ndax yàlla moom moom jaam bi te heure bu ko soxlaa la koy def waaye nekk na jaam boo xam ni xamul lu ñuy tiit ci moom xanaa keñ wéetal gum ñuy wéetal ndax ki nga xam ni baayam moo waxoon ne ñaan naa yàlla yàlla defal ma samay karaama nekk alquraanil karim te feeñ na ci mboole mu doomu baay yàlla def moom mu tombeek ba muy mokkal alquraan baay di tukki di dem seeti soppeem ba yonent bi sallallahu alayhi wa mu yóbbaale ko ci biir tari boobu tamit yàlla dimbale ko la bàyyi amee woon ci jamono jooju ak ñu ko ñëwoon di ko seet si mu yëkkati lépp jox ko ko muy cadeau loolu yëpp day wane ne Cheikh Ibrahima ñas nu mel ci alquranul karim ñun nag suñu yaay la suñu sëriñ la ndax ñoom ñooy suñuy mag te jiituñu ñuy xool ci ñoom waaye wax naa ne du ma tiit ci moom ndax ki dëkk ak alquran ndax nee nañ la alquran soo ko mokkalee juróom-ñaar fukk sa wàllu waay juróom-ñaar fukk sa wàllu baay yàlla daf leen di jéggal rawatina nag ki nga xam ne nag moom ñaata nit la jàngal ci alquran bañ mokkal alquran jooju kon rek lu ñuy def fa mu jóge woon foofu lay dellu dee ragaluñ ko ndax Cheikh Ibrahima ñas xamal nañu lan mooy dee ndax waxoon nañu muutu qabla muutu tumuutu leen balaa dee di ñëw dee ci yàlla nag mooy dee dugg dëgg ga waaye dee gi moom wuy ji sa la kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye moom mi nga xam ne moo ko may alquran jooju yàlla na ko alquran ramm yàlla na ko dugal ci àjjana yi gën a kawe yi tey lu ma lay wax ci jàmbaartu jigéen tey suñ ko doon seede ci moom jàmbaar dëgg dem na bàyyi Niass dafa am ay doomam yoo xam ni moo leen yaral boppam waaye daf leen a jël bàyyee leen ak boppam ñu dem mun nañ cee cité seydaa Mariam mun nañ cee cité Seyda Umul Xayri mii nga xam ni sax ba muy dem moom Seyda Umul Xayri Haaj Ahmedu Xalifa la ko booleek mu dem yóbbu ko ci dëkk boo xam ne ndox suñ koy ut ci chambrière lañu koy utee te ba mu ñëwee di ñibbi dafa làqatu sëriñ bi ba mu ñëwee na ko ay baay sa doom ji fa nga ko yóbbu bàyyi na ko bàyyi ko bés a ngi ñëw ñëpp a koy ñëw di ko ut si te loolu am na ndax buur yëpp ak président yëpp dañ koy soxla di ko yónnee ay jig privé di ko ñëw di ko seet si Seyda mii tamit bokk na ci ba muy ndaw mu koy yóbbu dakaar mu ngi nekk ndaw mokkal alquran daara ja ñuy wax daara ja mu ngi ko ubbee ca Malick si waaye daara jooju tey di nigérien di français di ku nekk jaar na fa mokkal alquran te gis nañ ne bu njëkk ba tajwid amutoon Sénégal Seyda Mariam mooy ku ko njëkk a def ci alquran yàlla may ko mu nekk jigéen taxawal école taxawal boppam taxawal famem ndax man mii di wax ak yow nekk naa secrétaire ci moom deux ans yoo xam ne dama ñëw di ko xidma ci secrétaire googu maa jëloon à deux mille cinq mbooleem li nga xam ne mooy colonie de vacances sama loxo la ko teg maa ci yóbbu ñu bëri bokk na ci doomu tal tey alxalifa Cheikh Mahi ci la bokk bokk na ci doomu Mahmoud Ibrahima Niass ci la bokk bokk na ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni tey jàng nañ ci 2005 boobu ba am seen licence ba ñëw tey Seydaa yëkkati loolu def ko sama kon man xam naa ci moom dara waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na yàlla suuf sedd ci kawam salaamaaleykum wa rahmatulah. ah sentiment bu ma andi mooy mbokk la si diine bi mbokk la si ñas bi mu def lu bëri si diine bi. mooy borom alxuraanu karim muy idole yi jigéen yi tey boo xoolee xol yi ku mel moom amatut boo tegoon ay junne góor ku mel ni moom doo ko gis ñu doole sant yàlla subhaana wa taala di ko ñaan lu mu liggéey si jamono bi si àdduna bi si monde entier muy dëkk araab di Afrique lépp lu mu si def yal na ko yàlla barke bi wàcc si ñun mu baawaan wàcc si sët si doom yi si taalibe yi si ñëpp kon ñun daal xol yi fees na xol jigéen la boo xam ne tey waruñu sax jooy xanaa wéetaay la ñuy jooy waaye liggéey na ci adduna bi loo xam ne tey BBC wal euh, Al Jazeera fépp. fu nekk ñu ngi wane liggéeyam loolu sant yàlla alhamdulilah lii dafay wane waat beneen feeñuwaay ci ay feeñuwaay Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu te drapeau bi du daanu ndax alxuraan bi dafay continuer ndax bàyyi na ko ci njaboot gi yëpp ci taalibe yi fu nekk ci àdduna bi soo demee Nigéria imam nga fay fekk yum defar nga dem Ghana fekk fa ay imam ba Amérique ba Londres ñëpp ku ci nekk te ay kilifa yoo xam ne dafa ba ci gouvernement bi am na ñoom ñoo xam ne ay intellectuel de donc c'est une femme exemplaire boo xam ne mënuñ luñ mën a wax sax duñ duñ duñ duñ mën a mellal li nga xam ne def na ko ci umma islamique duma wax ci njabootu baay duma wax ci ay doomu càmmiñam duma wax ci ay taalibeem waaye njabootu àdduna bi yëpp laay wax nit ku baax nit ku bugg alxuraan ku sey ngir yàlla ku jël dundam bi yëpp def ko ci alxuraan feesal suñ den yi ñun doomam yi ci alxuraan wax dëgg yàlla doomu càmmam yi ku am juróomi at mu jël la yóbbu la këram jàngal la alxuraan bi ñuy ximale ko di fàttaliku ci benn néeg la ñu daan dajale nit ñëpp ñu bokk moom di fanaan benn néeg benn du si benn saal te yàlla indi lim indi yëpp te ba léegi fu mu dajeek ñun sa alxuraan bi mbaa fàttee ko tarin ma ma dégg mënuñ koo fay dañ koy bàyyi yàlla yàlla fayal ñu ko alhamdulilah rek la ñuy wax alhamdulilah. sant yàlla rek sant yàlla rek wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jëmm alxuraan dem na jëmm baax dem na. waaye ni ko Zeynab Lamine waxee rek amul leneen luñ ciy tegaat damay wax ni wax alhamdulilah yar nañu nàmpatal ñu ñun doomu càmmiñam yëpp ñu mel ni ñoo bokk ndey ak baay suñ gis suñ gëjee gisante fukki at mel ni léegi dañ tàqalikoo suñ gisaatee ci loolu la ñu yar ci alxuraan ci baax ci yiw julli saraxe yërmande loo rek la jàngatal ci ñun loolu la jëmbat ci ñun

kon boog moo tax xàmmeewuñu dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla moo ñu joxoon yàlla moo jëlaat waaye nag yàlla dimbale nañu ba benn mariama dem na comme nu ko xalif bi waxee mais bàyyil na ñu fi ay mariama yu bëri kon boog loolu dañ koy sante yàlla di ko ñaanal fële mu dem yal na ko fa waajuram bi teewu yal na ko yàlla taas ci àjjana yu gën a kawe di wax ne daal euh, tarixa bi ñàkk na Sénégal ñàkk na mais Afrique ñàkk na ak moo entier bi ndaxte ku mel nii ak ko xool lu mu fi jëf bu yàlla defee mu jóge fi ñëpp a ñàkk. président de la république moom ñëpp xam nañ digganteem ak Medina Baye ñëpp xam nañ ni mu fonkee Medina Baye mais ñëpp xam nañ aussi Medina Baye fi mu ko teg kon xalif bi bu defee li delloo ko njukkal yaakaar naa ne loolu lu naturel la lu normal la si moom lu dëggu la si moom aussi ndaxte ñëpp xamee ne nañ ko moom loo xam ne nii gëmu ko du ko wax. moo tax bu ko rendre hommage si lu président def yëpp président aussi moom mag Medina bàyyi kii bu yàgg la kon boo su ko taxawee wax ko noonu ñun dañ def lu dul rafetlu ko sant ko si gërëm ko si et ça malgré toute l' émotion qui l'anime ndaxte xam nañ fu ko soxna si féete woon ak nu mu meloon ak soxna si kon bu ko yàlla mayee clairvoyant ba mu def loolu dañ si sant yàlla bu baax a baax jërëjëf.